mu mel ni génnub àdduna astu soxna ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga daal dina indi beneen xaar kanam bu yees ci wàllum wérgu yaram ci Sénégal ndax liggéeykat yi ñoo xëy banque seeni yoxoo grève bi nag daal dina indi ay jafe-jafe yu bare bari fii ci hôpital Philippe Maguilène Senghor ñi fi faral di ñëw jàpp ni nga xamante ni ñooy fajkat yi ci seen dëgg nekk. waaw garab bi de moom sama bi moom dama jàpp ñoom ñu ñoo doon ñoo doon tax di liggéey daal. donc bu ñu a def du a def. ñaaw na trop ñaaw na trop affaire santé warul am affaire grève yu demee noonu wax dëgg yàlla ak nu mënti mel war nañ leen taxawu ba nga xamante li ñu bëgg yëpp ñu leen koy defal ndax sante moom amul prix. heure bi daana fekk nit ñi dañuy bëri te fi mu nekk léegi nit ñi bëreetuñu parce que koo wax mu ne boo demee poste poste boo demee poste de santé kenn du faj dañuy grève te loolu avancé wu ñu. li ni mel yokk jafe-jafe bu baax a baax ñu bari daal dinañuy ñaawlu li am ci wàllum weexu xam ci Sénégal waaye dañoo war a gën a yokk seen taxawaay ak ñi ñuy jëflanteel ci bërëbu fajukaay yi. ne c'est normal dañ leen war lu ñu bëgg dañ leen ko war a defal parce que ñoom ñoo yor santé ñoo yor nu ñu koy waxee ñoo ñooy jàppale nit ñi daal dañ leen war a jàppale ak lu mën a xew dañ leen war a jàppale. ah li ñuy sàkku de mën nañu c'est légitime waaye tamit d'un côté ñi nga xamante ne yi dañuy ñëw nekk ay patient vraiment am nañu droit ci ñu leen a accueil bu baax vraiment. ñoom ndawi kër docteur yi xëy nañu banque seen yoxo jàpp ko ci ab diir mu doon loo xam li nekkul guléet mu am ci Sénégal am na loo xamante ne bu la si yàlla boolee danga si def lu baax def la si loo xamante ne lu sell loo xamante ne lu neex yàlla lu neex yonent bi ndax problème yi santé jaamu yàlla la kon nag lépp loo xamante ne day gaañ askan wi dañ ko war a daw nañu xam ne yàlla la ñuy liggéey liggéeyal ñu kenn kon nag grève mënoo ñàkk mais nañ ko limité xam nañ koy doxale ndaxte askan wi sonn nañu feebar nañu te grève warul santé ñenn ci askan wi rawatina ñiy faral di ñëw ci bërëbu fajukaay bi nekk fii ci Yoff ñi ngi ñaax gouvernement bu senegal ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci wàll wi ñu waxtaan mbir mi bala moo ëpp loxo. donc vraiment euh, ñu ngi bu grève bi mais bon. nag nguur gi daal wax ak ñoom trouver terrain d'entente comme ça médecin mën a nekk seen droit malade médecin euh, malade tamit mën a nekk seen droit. ah ñu góorgóorlu ci santé bi ñu góorgóorlu bu baax a baax ñu góorgóorlu jàppale nit ñi surtout ma affaire mutuelle beeg yeneen ak yeneen ndax ñun santé moom wax dëgg yàlla amul prix. waaw man daal loolu laa gis daal. a ah, nguur gi nañ leen toppatoo rek ñu waxtaan ba juboo rek te xam ne ku repp moom da ngay dee boo deewul fii di nga dee feneen. waaw comme ça ñu bañ bañ leen a kii rek jox leen ay sommation ak yeneen pour beneen yoon. ñeneen ñu bañ kaa def. lu ci mënti xew ndaw yi kër docteur yi daal di nañuy xàppati ñetti ci ay fan banque seen i yoxoo di sàkku ci gouvernement bi mu gën a ñoŋal bërëbu fajukaay ndax foo laal féppay metti waaye grève bi ni mel daal am njeexital bu mag a ci Sénégal ba tax askan wi ñi ngi sàkku ci liggéeykat yi ak nguurum Sénégal ñu toog waxtaan xool nas lañ mën di def ba saafara jafe-jafe yi am ci wàllum gu yaxam ci Sénégal.